25 24 allo salaamaaleykum mbokk mi. Diarra. oui. maaleykum salaam. delloo ziar man ne. Mhm. dama ne Sénégal moom seen bëgg-bëgg seen lépp mu ci seen loxo. Mhm. bu leen ko jaaralee dinañ jóge ci jafe-jafe yi ñu nekk. Mhm. bu leen ko jaaralul nag duñ ci jóge ba illaa yawmi diin. Macky Sall nag moom li bëgg moom mi koy def. mais Sénégal moom ñoom lañ kenn xamul li ñu bëgg parce que bu fekkee ne Ousmane Sonko moo fi nekkoon di génn di leen ma di di di def li ko war. Mhm. Macky sàll mi néetu fi mi am na li bëggoon jàpp na ko téye jàpp Bassirou Diomaye Faye téye mhm. mais Sénégal nañu génn xeex lii mais bu leader yi wootee sax ay doo fa gis sax cent personnes yu mat Sénégal fan lañ nekk. Mhm. lii Macky Sall mi ngi def li mu bëgg ñun la ñun lañ ñun waa Sénégal ñun lan xamut ñun luñ bëgg ñun xamuñu ko parce que ñi xeexal itam mënuñoo xeex ñoom dong buñ génnee ñun dañ cay topp dooleel leen mais ñoom mënuñoo xeex bi xeex bi ñoom dong Macky Sall nag moom mi ngi def li bëgg mais wallaahi asim du ci am ndam Sénégal gépp nañ génn xam ne Sénégal kenn duñu ko xeexal ñun ñoo ko mën a xeexal suñ bopp jeunes yi ana ngeen dee nekkul ñaari yoon dee benn yoon dong lay doon te suñuy njaboot lan fi bëgg a non parce que lii yow Macky Sall lii mu génn décret bii mu génn soxna si tegu ko fenn mhm. ci bakkanam dong la ko teg ak yabnu kon nag nan leen génn xeexal ko suñu bopp mhm. lii jóge fi mhm. tantaa nekk fi nag naan sëriñ bee waxut lee kii lii la wax kii lee la wax gis soxna si bu ñu waxantee dëgg rek olof njaay dane bu maanee taxawee moo ne day toxu te ki ñu waxal maane mi ngi fi te wax dëgg yàlla sëñ bi ñi koy mani xaar buñ bëggee mu wax dina wax buñ bëggul mu wax du wax parce que fii lañ génn communiqué ne sëñ bi nee na du recevoir kenn fee weer te sëñ bi recevoir na ñi kon kay sëñ bi am nañu koy mani xaar buñ bëggee sëñ bi wax sëñ bi wax buñ bëggul sëñ bi wax sëñ bi du wax tey jii boo damoon boo damoon ab bant bu ndaw biir Tuubaa na ma yàlla jéggal billaahi bu subaa ñu wax loo ko te dinañ ko ko waxee noo xam ne nii sëñ bi dana génn ba waxee loo xam ne nii sax da nga yaakaar ne Tuubaa gi paraaf kon am na ñu nekk ci biir di wax sëñ bi loo xam ne nii niñ ko ko war a waxee waxewuñ ko ko ak liñ ko war a digal digaluñ ko ko kon am na ñoo xam ne ñooy mën sëñ bi lii Sénégalais yi soxla yomb na muy wax dëgg génn ne makki sàll réew mi joxewuñ la ko woon nii ay gi dafa jotoon ñu jox la ko ay na wateel. bu la nit ñi wóoluwaatee jox la ko bu la nit ñi wóoluwaatul jox ko ki leen neex sinon nag réew mi lu fi yàqu yéen yéenay responsable bi lii yomb na lii la kilifa war a gét lii doog lañ soxla kilifa wax ko Macky Sall amul leneen mais nit ñi boo waxee dañuy yaakaar ne yow kat da xamadi waroo digal sëñ bi non sama waay yeneen yàlla yi sax dañ daan wax li ñuy wax ñu kirte gi leen ne leen ñu ànd ceeg ñoom ñu gën a rafet. ak ñeneen ak ñeneen kon nag kenn jaamu fi lu fi Souleymane jaamuwut kenn jaamu fi lu fi Ayoba jaamuwut te dañ daan génn di àtte nit ñi ci digg pénc mi bu ñu jaxasoo kon buñ la fi indil loo xam ne nii amu fi woon kilifa yi ñoom lañ yaakaar buñ gàmmoo ñun la ñuy woo buñ màggalee ñun la ñuy woo buñ jaaxlee ñun la ñuy woo bu ñuy gasi ay travaux ñun la ñuy woo kon nag ñun itam jaaxle nañ nañ dimbale ngir yàlla génn wax ak kii nga xam ne baa dolla la xamul waxi suuf wax ci pénc mi la xam kon nañ génn wax ak ñoom ci pénc mi waa pénc mépp xam ne ñii wax nañoo kii waaye wax nañoo moom ci ronlal wax nañoo moom ci néeg wax nañoo moom ci nit ñi soxlaatuñu waxee saal soxlaatuñu waxee ronlal waxi pénc mi lañ soxla nañu dimbali ngir yàlla dikk wax ak kii ci pénc mi kii waxi pénc mi la xam kantaa nag waa Sénégal nag génnu leen lijjanti lii wallaahi la seen ci njaam ngeen di dee ndax Sonko xam na leen mm-hmm. jaajëf jaajëf euh, ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax ñu leeral encore une fois que ni émission bi euh, kenn bu génn fii di woote lu jëm ci wàllum fitna encore une fois waaye nag Sénégalais bu nekk xam nga sañ-sañ gis réew na muy doxee nga ne ànduma ci génn wane ko nakarlu ko donc pour muy leer rek comme réew mi dafa ko ci xoo nekkuma fii fi ne nit yi nañu génn wala ñuy woote aussi ne nit yi nañu génn en tout cas man digloo ma loolu donc ku ci nekk rek la muy xam la moo mooy que ni ñi ci génn wane euh, nakar bi nga xamante ni am nañ ko par rapport ak décision bi nga xamante ni président Macky Sall jël na ko ci ku mu neex 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 ngeen continuer woote ci numéro yooyu su ko defee rek di ngeen daal di mën a dugg wax seen xalaat ci réew mi na muy daal di doxee bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko mën ngeen a continuer di woote ci 88. 628 73 13 di ñuy waxtaanee tey euh, tey euh, euh, ñi fexe ci kujje politique bi def nañu ndajeek taskatu xibaar yi ngir àddu ci jamono ji ñu toll nii li xew maanaam élection yi nga xamante ni daal daat nañu koy puus ba ni kii le 15 décembre bi ñu detmal ñoom nag jàpp nañu lu nu mel du ñu ko nangu ba tax na daal ñu ngi tëral seen i plan ngir rek fexe ba président Macky Sall décision boobu wala ndogal boobu nga xamante ni jël na ko mu daal di ci te ngir ñu amal élection yi ci bés ba ñu ko jàppoon yemook 25. 5 février bi ñu daal di euh, dëtmal bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. oui euh, mhm, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw waaw duggoon naa sànq nag dafa am lu ma bëggoon ma duggoon naa sànq ma dafa am lu ma bëggoon a préciser rek. d'accord. maanaam xeex bi moomu la ñu ko parti. mais mais mais mbir moo gis dafa xam nga Ousmane Sonko bu heure bi fekkoon mu nekk ci biti heure bi kenn du ni nit ñi génn leen. mooy mooy li ma la waxoon sànq ni la population bi ku ne xam na ne ni Macky Sall armée police beeg gendarmerie bi ak moyens yi mu leen jox man de maa ngi man Italie laa la wooye conseiller wu ma kenn ñuy génn par benn benn demal la woon xeex boo gis ci àdduna ba ci réewi tubaab yeeg naar yi day am njiit njiit la ñooy génn nit peuple bi topp ko loolu nag bi ñu téye Ousmane Sonko loolu actuellement bitt boobu moo nekk ci biir opposition bi duñ ne li ko doon mën a déclenché waat mooy li ma la waxoon sànq bu Macky Sall laaloon par bu Macky Sall jàppoon bu leaderu pire boobu rek léegi tey soulèvement moo tax bu ko am ku dégg sànq di ci duggoon sànq di wax di di minimiser pire c'est parce que moom xamut xam nga man maa ngi Italie xaw ma ni moom leaderu pire bi mi ngi déroulé ci des ñi ngi déroulé ñu jàpp leen xam nga man a yow yaa ma ko wax man xaw ma ko woon mm-hmm. mais depuis samedi man bi ñu wote kii loi bi man maa ngi ñaan ñu jàppal leader bi ndax xam naa ne bu ñu jàppee leaderu jeex. parce que xeex boo gis nay am interlocuteur loolu la Macky Sall xam moo tax ñu mënu koo jàpp bu mm-hmm, dëgg kon nag kon nag ki xamul moom di minimiser parti boobu c'est parce que mi ngi ci moom xam mi ngi ci erreur xam nga kii jàppaate bay jàpp benn ay baaba Anta Babacar Ngom ak Mimi Touré nga xam ne du candidat nga bàyyi fa parti euh, leaderu pur bi te muy def karawaan di wëndeelu ñu bàyyi ko nga bëgg a minimiser kooku doo xool ba xam lu tax lu waral lii doo ko xool xam nga lu ne fàng moom kenn du ko jeex man néewuma Sénégal maa ngi Italie man yaa ma wax ne mi ngi dóoru leen naajement kenn jàpp ko te que kon kay li ne fang kenn du ko jeex li tax Macky Ba di ko romb di ko romb laalu ko xam na xam na li xew parce que bu ko laalee moom la la na Ousmane Sonko doon génne mbooloo mi boobaa dinañ gis mbooloo mu ko raw loolu tax ñu ko laal kon ñun ñëpp dañu focus ci ñaar ñu jàpp leaderu pire leaderu pire bi mm-hmm. bu ko boobaa rek coow li jeex. ba salaam.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 waxtaanee donc woote leen ci numéro yooyu bu ko defee ngeen dugg wax seen xalaat par rapport ak réew mi ni muy doxee ak jamono ju ñu toll nii pëcc xoo gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci langum euh, politique bi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 li ñuy waxtaanee tey. bokk na ci conférence de bi nga xamante nii euh, ñenn ci euh, wala sax kandidaay yi nga xamante ni ñoo war a di jongante ci élection yi. def nañu ko ngir rek euh, di xam ne ni daal lu ni mel duñu ko nangu tey dinañ continuer di amal seen ay activité euh, beneen ponk bi bokk na ci ni dem euh, ba coalition Diomaye bi nga xamante ni bëggaloon nañu amal caravane foofu la ci tere ak APES waaye mbir mi mujjewul woon en tout ba ñenn ci ñoom dañ leen ne daal di mujjee teg loxo ci mel ni Guy Marius Sagna ex capitaine Touré Abass Fall waaye mujjanteel gi ni tey gis nañ ni daat nañ leen di bàyyi bu fekkee. am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. ah salaamaaleykum. soxna Diarra. oui ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax. waaye Diarra naka mu man la Cheikh. tur beeg fooy wootee. Cheikh la Cheikh. Cheikh d'accord ñu ngi lay ziar di la jaajëfal. alhamdulilah ah bëggoon na dégg sama participation quoi. d'accord ñu ngi lay déglu Cheikh. Mm-hmm. Ah, maanaam xam nga dañu toll ci maanaam période boo xam ne maam jaara fi toll nii xam kenn ku ci nekk solution lay wër pour ñu mën a xool li ñuy def ba jéem a trouver benn terrain d'entente pour mën a xam ci li ñu jëm parce que lii nii d'accord naa de gars yi ku nekk ngi wax naan sénégalais yi génnuñu sénégalais yi génnuñu gis nga soulèvement populaire ñu nu ñuy organiser nit ñi ñooy toog ba sentiratuñ seen bopp gis ne lii xoolal dafa jar ñu jóg ñëpp dañuy jóg sénégalais yi lii xew nii fu yaakaar ne daf leen a neex da ngay nax sa bopp mhm. parce que dañu toll ci moment boo xamante ne xam nga il faut gars wut solution c'est pas parce que dañoo war a tëb xeex c'est pas parce xeex da ngay xëy tey mu wax tey mu jeex tey mënul nekk parce que kuy xeex ak gouvernement war nga xam ne xeex bi du jeex benn fan du jeex ñetti fan du jeex juróomi fan parce que Macky Sall lii muy def nii c'est pas parce que moo koy def dafa am lu ko ci jàppale muy armée bi ak la gendarmerie ak la police ñii ñoo ko jàppale moo tax mu am fitu taxaw di def li muy def nii parce que arme yi mu doon jënd yépp lii moo taxoon mu di ko def parce que lii c'est pas quelque chose boo xam ne dañoo xëy tey tey rek Macky Sall xalaat ko ne acca yàgg na ko préparé chose la boo xam ne lu ñu yàggoon a préparé la kon donc il faut nit ñi bu fii dugg tamit di xeex il faut ñoom ñëpp ñu trouver benn terrain dans d'entente boo xamante ne même conférence de presse yii ñuy def bu ko kenn xeex parce que xeex bi nekkul xeexu Pastef encore une fois nekkul xeexu PUR nekkul xeexu Khalifa sàll wala keneen ak keneen xeexu population sénégalaise kon donc il faut nit ñi jéem a xam ne xeex bii du xeex boo xamante ne benn fan la war a diire pour mu jeex mënul nekk yeneen dëkk yi ñuy jël yeneen dëkk yi ñuy jël euh, euh, exemple yëpp naan Mali nii xam nga Algérie nii Égypte nii xam nga c'est pas parce que ñoom dañoo xëy benn fan rek xam nga waaja def la muy def rek ñu xëy dàqandoo ko déedéet xeex foo gis étape par étape lay dox te xeex bii fi ñu toll nii intelligence moo koy xeex parce que gars yi xam nga sonn nañ ci mbedd mi ñu leen di dóor mais nag bu fekkente ne dañu bëgg soulèvement populaire am Mame Diarra il faut mag ñi jéem a jóg jàppale boy yi parce que boo xoolee terrain bi ñu ci nekk di xeex yëpp ay boyu dix-huit ans la ay boyu vingt-deux ans boyu vingt-cinq ans boyu treize ba seize ans ñoom ñoo nekk ci terrain bi pour le moment di xeex parce que les deux fils yi doon xeex yëpp genn wàll yëpp jaara neexut a dégg mais ñenn ñëpp ñu ngi Nicaragua ñenn ñi dugg nañ ci gaal bi faatu ci ndox bi mm-hmm. bon ñeneen ñi ci des keroog maa ngi fiy wax naan la am na booy sénégalais yoo xamante ne amuñu conscient jaara daf koy gën a firndilaat c'est pas parce que la jeunesse yëpp ñoo ñàkk conscient mais jaara dangay xool bu bi réew mi di tàkk ñëpp nekk ci biti di xeex pour am liberté boo xamante ne dinañ ko jox seen réew ñenn nit yaa nga dem ay jeunesse dem taxaw buntu làmb di di taxaw feesal ko del ba démb lundi bi amoon na làmb barki démb xaw ma dañoo xaw ma mardi bi dañ ko feesalaat del mu leer la ne am na ñoo xamante ne jaara bo man duma xam ban côté laa leen di classé parce que doo comprendre lan mooy problème beneen bi ci topp mooy bon comme dañu toll ci affaire boo xamante ne Macky Sall moom décret bi mu jël moo la gën a xam ne décret bi baaxul te buñ ko attaqué mën na daanu comme nag ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne ay texte ak ay réglement la ñuy doxe ñu ne république la ñu yor kon donc nit mënta wax ba pare te doo layoo doo laytaayoo ci la nga xamante ne moom la république bi teg muy lan ay texte ak ay réglement parce que mënoo wax pour indi lay ci li Macky Sall def te tegoo texte ak règlement mënul nekk mm-hmm. kon donc bu nit ñi di wax ne dañu war a Macky Sall la loi bi lii ak lii la wax c'est parce que dafa am laytaay bu ñuy wutur woon ne li mu def du yoon pour nit ñi mën a comprendre li mu def ñëpp xam nañ ne Macky Sall faalewul règlement faalewul texte mais nag booy wax ak population bëgguñu comprendre la ñuy wax dangay indi ay texte foo indiwul texte du ñu xam li waral lii am parce que li waral lii am mooy Macky Sall ci bëgg-bëggu boppam xam na ne bu candidat am demee dañ koy duma ci élection yi te buggul ñàkk élection yi donc moom ci boppam décret bi mu jël xam ne ne baaxul assemblée nationale article L 31 bi ñu voté ñoo la gën a xam ne ñoom du ñoom ñooy yokk mandat wala ñu di ko wàññi parce que en euh, euh, Macky Sall en 2016 euh, je pense xam nga bi mu taxawee ne dafa bëgg a wàññi mandam xam nga bon xaw ma 2012 je ne xam nga je ne rappelle plus bi mu nee dafa war a wàññi mandam cinq sept ans la woon nañ ko defal cinq ans. dafa dem ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci boppam moo taxaw ne ko yow constitution bi lii la wax yow du yow yaa war a wàññi mandat wala nga di ko yokk donc bu demee ba fii tey mu jël benn décret boo xamante ne leer na ko ne décret bi ci bëgg-bëgg boppam la nekk gars yi ne ko génneel décret bi ñun ñu attaqué ko Amadou Ba moo ko signé mais il signé son mort xam nga sa mort quoi ah xam nga il signé sa mort. loolu moom man du ma ci sori parce que moom ñoom la ñoomi neen la xam nga mais sénégalais yi dañu soxla ay texte ak ay loi pour mën a gind yeneen sénégalais yi nekk ci seen ginnaaw donc nag bu ñu demee ba toll fii il faut nit ñi am nu ñuy wax ak nit parce que nit boo bëggee mu xeex du da nga koy harceler wala nga gëdd ko pour mu xeex mhm. dafa am nooy wax moom pour jox ko conscience moom mu xam ne lii nga koy digal yow wala lii nga ko jëmee dafa am loo ci jublu mais bu fekkee da nga koy ak arrogance mbaa nga am neneen noo xamante ne moom nga koy waxe moom dootul gis ne yow da nga koy teg ci indication bu baax mais dafay gis ne da nga leen a bëgg a imposer pour mu génn ci terrain bi pour xeex parce que xeex yombul xeex neexul ku koy def rek da nga ko war a encourager mais waruloo ko décourager parce que courage mooy tax nit génn xeex mais xeex balaa ñu ko mën a xeex sama il faut nit ñi xama bon kenn ku ci nekk xam ne lii sama devoir la du Sonko moo tax ma koy def du pur moo tax ma koy def du leneen moo tax ma koy def te man nag maa ngi waxaat waa conseil constitutionnel ñu xam ne comme ñoom ñoo waxoon Macky Sall du yow yaay wàññi mandat wala yow yaa koy yokkulu parce que constitution bi mayu na ko kon donc bu ñu indee lii nga xamante ne Macky Sall dafa dem laal L trente L trente et un te mu leer ko ne L cent trois moom moo ko tëj ak caabi sàmmi caabi jéeg-jéeg kon donc xam nga mu leer ko ne mandat bi dafa am commencement am fu mu yem moom bu ñëwee taxaw tey di wax waa constitutionnel ñoom yëpp nag seen seen seen maanaam nit ñëpp nga xam ne sénégalais yi tey ñu ngi xippi seen bët di leen xool ba xam nan la ñuy taxawee te buñ leen indil nag sa waaye xam nga bu ñu attaqué décret bi indil leen ko ñuy jéem a wax naan non sama moom compétent wuñu pour def ko non waaw loolu moom sénégalais yi xaaruñu leen foofu sénégalais yi dañ leen di xaar nañu waxee woon ne moom amul droit wàññi mandaam mu bañ a déclarer non compétent nañ bañ a déclarer loolu nañu xam ne ñoom lii se compétent c'est parce que ñoom ñooy garne de la constitution ñoom lañ ko dénk ñoom ak président te président ci boppam moom mi nga xamante ne moom moo ne woon xam nga constitution bi kenn mënatu ko daj ji jël 103 tëj ko article 103 tëj caabi ji sànni ko géej ne carrément lii mooy mandat président kenn mënatu ko yokk tey moo taxaw weddi boppam bëgg jaar ci assemblée te xam na ne assemblée mënu koo yokkal mandat te mënu koo wàññil mandat parce que constitution bi boo ko laalee mooy da ngaa def coup d'état constitutionnel. asalaamaaleykum wa rahmatullah merci ñu euh, euh, Cheikh bu baax a baax.